muqaddamatul xidma euh, day téere boo xam ne euh, sëriñ bi bi mu ko taalifee dañoo wax ne moom moo waral yoonu géejam bi te yoonu géej boobu sëriñ Fàllu wax na fii ne bu fekkutoon yoonu géej wi nee na kon dara du ko jar lii kun bi kun sarmadan wajal masiriya za jawfal fara lil wara mithlal maharini loolu yoonu géej bi la waaye lii awsili ladi uridu wan fai bi al wara yaa mughniyan an midfai te mooy suñu borom jëriñ nga ma te nag jot naa ci li ma doon wut yëpp waaye ku bëgg tey jëriñu nag ci man ngay jëriñoo loolu nag ku ci génnee muqadamatul xidma dara door ci door ci des ndax muqadamatul xidma ci la fàggoo loolu kon sëriñ bu mag bi di sëriñ Tuuba moo joxe juróom-ñaari xaaj yi nga xam ne moom lañu xaaj téere bi euh, ngir Euh, képp koo xam ne bëgg na cee jëriñu mën cee jëriñu ñuy fàttali ne muqaddamatul xidma salaatu ala nabii la salaatu ala bii nag santaane suñu borom bi mu doon nga xam ne suñu borom dafa wax ne da cee nekk te du ko bàyyi inna allaha wa malaikatahu na ala nabii daal di sant nag ñi nga xam ne ñoo gëm ñëpp ne na ngeen ci nekk mbind mi yaru lool te rafet di mbind moo xam ne euh, ku ñu wax Serigne Jong dëkk Njaareem moo ko bind muy koo xam ne xalimaam euh, euh, ku ko gis rek mm, gis nga ko di nga xam ne mbind moo xam ne du laalante fenn doo gis menn benn araf boo xam ne laalante nag morom ma kon loolu mooy mbind mu yaru waaye loolu ñu doon wax ci mbind mu moo xam ne dafa réew te du tooñ maanaam mbind mu jonge moo xam ne dafa rafet lool nga xam ne sànni yi fa mu war a yem lay yem waaye du tooñ mukk du laal benn euh, araf benn du laal morom mu arafam kon loolu ñu présenté leen ko noonu rek boo leen ko gisee euh, di ngeen xam li ñu bëgg a wax euh, ngeen xam ne daal liggéey baa ngi noonu kon na ci na ko ñëpp fàggu na ko ñëpp am bu ko defee rek ñëpp maasee am ngërëmal Sëñ Tuubaa li la leen sëñ Cheikh Fatma yéene ak daarul himma moo tax sax barab bi mu tudde ko daarul himma ndax sëriñ bi moom ci himma dong la woote woon moo yitte gu kawee ci suñu borom ndax mooy tax am ngërëmal yàlla am ngërëmal yonent bi euh, am ngërëmal alquran euh, am ngërëmal ñu baax ñëpp ñu fi jaarta te liggéeyal yàlla ba yàlla nangul leen asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sunu xasaayit yi di ngeen ko fekk ci maktab yi ak librairie yi rawatina sunu barab yi librairie bëgg Touba jàkkaarloo ak juma masalikul jinaan le numéro de téléphone du 78 184 45 45 ca librairie Bugutuba Touba marché Touba librairie Bugutuba Touba numéro de téléphone de 78 123 66 97 le 76 128 55 84 ou le librairie Mobilier. ku bëgg a jokkoo ak ñun wooteel ci 78 184 44 44 wala nga woote ci 78 184 45 45 daarul himma mool yi ñu def yitte di mooli xasaayid yi ma taamu. xasiidati